mbiɗom dunie duniye ɓuurom holkok ɓe safo jaat kati groupe média du sud ko jaalude suke yetti kap ɓe joy mat festival eti sisco jazz festival waɗi ƴeeɓe kane wotire wola kom e riñere sindenere majji keng la jeune setti cap mankuregoli bukkuju korume festival e yenom diji keng anosan anda sindenere maregoli po wajuju kadi festival e duko sankinoli po ɓe la cap bukkulla korume par ce que cap bukana tout kandi duniye komo manji suke ko regem cap hani de mo manji tiyokku jame jame suke mo kane fukuriŋade sindenere makkuregola bukkuju korume festival e yenom usenu riɓe no muuja Thank you. por la casa mos wela kom de vai casa mos c'est ça si concentre wa ngal la dat wo eta ti warum ni ro de toog tata kii maa ko déggee Pape Diouf jongarom ça va Pape Diouf na nga def Bouma ça va bien Kasumay Kasumay Kep Kati Dakar Dakar ça va ça va bien kooku ba tuur naka mu ça va bien ça va bien merci voilà vraiment bu Kasumay Kasumay Kep Kati Baabe kooku bo kooku ba tuur ok Marema bu Sumay ah bu Sumay ba Kati bo euh, je sais pas <laughs> kooku ba autour du festival ena naam mena jaara jaabe mate donc même man dégguma dara. Tata Ngoné Tata Ngoné o mi o fota jalo mate festival eti Cisco centre no jog mati duni tu bukana tu ku jalo be mate Cisco bukana ko buka duwe nte kanu ko buka duwe jat kasumay kep <laughs> buke tu ku jalo be mate festival eti Cisco centre Ousseynou no jog mati Casamance fure so refenu manjale duniya tu kandi kaji keroli yak woli ko ke be jole mate festival eti Cisco centre buke tu ku jaburu baaɓe casamance ko jaam jaam kadi sakati casamance mo kandi ko joobi e mate yo ko tout ko jalam ɓe mate kono nadi ɗik mati casamance batta famba ngoleni fré sora ousseyne wuringa ɓof liɓof allez merci allez au revoir je vous en prie ah, allez jikallo ka waɗi je ɓe kane ɓo jije ɓe kan wono sat uli ɓe ƴew ɓa falaf maƴi sen bukana tout mati casamance letiji bome keeb ko manje let furi ref keeb ko manje buraka pop ko mamanju bo ko guin diko seyk ko nine diko ni fan tout buraka keeb ko manje baɓe ñe casamance mo kane ousseynou riɓena muƴaɓa wambom Casamance Furé-Sora kep kumanje nyipullo puuba Furé-Sora fati sisko centre jijala jaba falaf bayje juke kati Casamance wo kungole num let maji se bukala to batlet Furé-Sora kep kumanje usenu ribera mu daju ka kamba falaf ko ku konde kambo salam alaikum gaay haba eh mu gis sama gaay fi salaamaaleykum eh, na ngeen def naka liggéey bi yéen a ngi ci jàmm Mali méttiwul euh, tey waa groupe Média di Sud ñoo fi ñëw fii ci Cap Skirring pour def seen émission moo tax euh, mënuñu mënuñu mënuñu fi ñëw sans pourtant ñu gis yéen ñi nga xamante ne parce que ñoom ñoo yor euh, dëkku Cap bi dama bëgg nga wax ma pêche bi nu mu demee fii Cap. mu ngi marché ndànk ndànk rek. mu ngi marché ndànk ndànk sëñ bi yow noo tudd. Mamadou Guèye noo gisee Cap. cap. Mhm. ah bu ñu bàyyee da neex na bu ñu batay dimbalee. Ah. waaw. Euh, pêche bi euh, nu mu demee nu mu pêche bi mbaa comme saison bi tëj na ni mbaa mi ngi avancé comme bu njëkk bi wala. fii fii am jën. Mhm. mënuñu fa dem ndax bat. ndax. bato yi bato ah, yi ah ndax bato yi. moo ñu war a jàppale foofu. waaw. ah gouvernement nag fan yi gis nañu liggéey di ko rafetlu lool. waaw machine yi mu ñu waxoon am na yu ñu gëj gis. waaw bu gënee yokk jéegoom mhm. it. daa daañu mm. merci beaucoup ah. ok. <laughs> mon frère na def yaa ngi ci jàmm li mbaalu la la crevette wala jën jën. sol yow noo tudd ah Ibou li ngay lii mbaalu sol la mbaalu mi ngi avancé ak sol yi. bateau yi moo leen sonal ah, dëgg la problème bi nga xamante ne ñëpp a koy jooytu donc euh, yow tamit ban message nga war am bi ngay lancé gouvernement bi. ñooñu euh, jàpp si bateau yo uh-huh. parce que bateau yooyu ñëw ba si 10 kilomètres yi ñuy laaw. Mm. Mm-hmm. nga ne bateau yi. dañuy ñëw ba si 10 kilomètres ñuy laaw. Ah, ok d' ok. Mm. maanaam yow tamit loolu ngay jooytu ci gouvernement bi. ok ok jërëjëf du courage dégg nga yaay booy naka def. yaa ci jàmm. yaay booy tey waa groupe Média du Sud ñoo ñëwoon tey waa groupe Média du Sud ñoo ñëwoon. pour def waaw waaw waaw dañ lay waaw. <laughs> groupe Média groupe Média du Sud télé bi nga xamante ne euh, pour dafa Casamance ko tax a jóg. tey suñu émission bi tey Kaffrine la ñu indi dañu ñëwoon pour assister festivalu Cisco Jazz festival bu la ñu ñëwoon pour assister mais dañu ne mënuñu yem ci biir dëkk bi il faut ñu génn ñi nekk ci biti ñu xam Casamance lan mooy njëriñu Casamance ndax ñii dañ tàmm di naan Casamance fecc rek la ñu xam moo tax ñu bëgg leen woon ne Casamance fecc gese amu fi maman loo am looy wax ñi ñuy seetaan. waaw mënul wax. maman mënul wax. <laughs> <laughs> maman nee na moom mënul wax maman euh, dama dañu bëggoon xam commerce bi comme euh, saison bi xaw na métti tuuti nu mu demee si commerce bu jën <laughs> maman nee na mënuñ wax nañu laaj maman bi <laughs> maman maman ma jàppale la maman ma jàppale la si waas bi ma jàppale la ma jàppale la ma jàppale la si waas bi rek waaw ma jàppale la oh maman commerce jën nu mu demee comme saison bi xaw na xaw na xaw na métti trop nu mu demee da ngay ci sa bopp. dëgg la man dañoo jóge gis nga de Ousseynou. Ousseynou gis nga de donc Casamance Casamance du joolaay doo nga ko moom. du dégg nga lu mu mu ne mi ngi jóge ba noor. ñoo bi ak yéen rek la ñuy yëngu. mais commerce bi mi ngi marché bu baax quand même. Ah, mi ngi marché bu baax alhamdulilah. a baax a dëgg la waaw jàpp na bu baax. eh mon ami mon copain. wees <laughs> non non non ma xool yi waaw <laughs> tey fii la waaw. sol yi rafet na de may mais sol nu mu demee da di maye wala dañ koy jaay. dañ koy jaay ah. Ah, ni cherul torop kat cherul cherul ah par exemple sam nyata la sam amna sam 200 amna sam non dal ñoo bëgg dal sa poste bu ci dal ah légui yi yi ngeen di was ni mom da ngeen koy jaay wala da ngeen koy wër après sonal moy yaq xana yaq bi da mo so ah lu ñu yaq ci geej bi ma nga ni ba nga ni bali bali lu tak sa ah ok. xale sonn na. yàq nañu mbaal bëgg nga wax ma comment ni demee nii. dañ koy jaay wala dañ koy maye. parce que maa ngi dégg ngay tudd sànq ndawal. ndawal damaa ah, ko may wala dañ ko jënd. dama koy ndawal la ndawal la mbaa jën seeru fi torop. jën. Ah. seeru fi torop. Ah. ok copain na nga def. doo ci jën yi ah. <laughs> da ko koy yóbbu. blanche blanche nga koy yóbbu. Abdou bi mbaa cher na wala cherul. Abdou tey géej gi neex na. tey géej gi waaw naxariw léegi di yëkkatil ma sool bi. Ah. bii bii euh, tapal waaw waaw yëkkatil ma ko. Abdou yow wecc ma jënd. gis nga de. gis nga jën bi bi kilo bi ñaata la. ah kilo bi ñaata la ah nga ne géej bi neex na tey Ousseynou gis nga de lii mooy Casamance <laughs> lii mooy Casamance gis nga de li ma jox jox ma koŋ bi. waaw gis naa ko fi. waaw gis naa ko fi. waaw bii mooy jënu joolaay jënu joolaay <laughs> bii mooy jënu joolaay ah. ah ok d'accord ok gars yi nee nañ mu moytu mune limo mu ne lii mooy jola joolaa jënu joolaa monsieur Fall dégg nga de nee na lii mooy gis nga <laughs> nga ne bi na ah, ah naxar bi tamit ah bato yee dak ah Ousseynou fu dem ñu batu bato yee di dak fu dem ñu batu bato di dak kon yow ban kon kon yow ban message nga war a mën a lancer gouvernement bi pour ñu dimbale waaw <laughs> ba tey daal bu ñu sañoon li ndoxu la ma raxasu. ah nga ne bu ñu sañoon ñu. ah ñu may leen ndax yéen fa ngeen di amee seen teranga wax nga dëgg de ɓisoŋela la yetti jat leti kone mante ɓe a keɓ ano sanda sindela de waji jalo ɓe juke wola kom ɓe juke casamance wokonndi kanafa kati suke maji sen duniye ɓuuro mati atlati fuude sodof keɓ kumanje par ce que wonlaji commencé olo mbaji bomeji commencé olo mbaɗa leɗɗi bome keɓji manje de komo manji ɓuuro kam kojji juk fala usana tu wajjubña pour kati casamance wonko rokku mem mokane foki jiɗi noken pode suke maji keng jeunesse e pop kando ma saison e kulña bu bu bu bu makonndi ka e saison e kulña mum Gaza.